jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan Touba Argentine TV di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm jamono ji nag ñi ngi fii nga xam ne mooy kër Serigne Khadim Gueye doon ku ñëpp ràññee naw ko lool ci lii nga xam moo di ñàngum xasida wax dëgg yàlla mu am baram bu yaatu fii ci Porokhane depuis ay ati at muy ñëw di fi amal li nga xam ne mooy màggalu Porokhane macha allah doon koo xam ne it ñëpp naw nañ ko ci liggéey bi doon koo xam ne it yaatal na mbir mi eh, doon te ma ko jàngal waaye gone yu bare bari ci moom la ñu eh, amee li nga xam ne mooy eh, xam-xamu lii di njàngum xasida Sëriñ Xaadim doon koo xam ne tey télévision Touba Argentine TV fas yéene séq ak bëgg séq moom rek ay kàddu yu gàttu doon te xam nañ ne coono yeeg yitte yi bari na feggoog ki nga xam ne mooy Sëriñ Asan Mbàkke mi nga xam ne mooy doomu Sëriñ Atte Cheikh Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal. jiite mouvement bii di mouvement appel di jàppale eh, Karim Wade tey. mu ñëw fekkee si cérémonie bi nga xam ne Serigne Khadim Gueye da koy amal ci teewaayu mboolem soppe yi ak taaliba yi ak ñi nga xam ne ñooy wëllëre yi ak daayira bi nga xam ne mooy Mafatihul Bichri ak mboolem jànkatu xasida yi nemmeeku nañ fi léegi Serigne ab Lahad Diouf seen ngeen ko noonu macha allah sëñ Mouhamadou Mara Seck sëñ Bàcci Diop ñoom ñëpp ñu ngi fi ak ñoom sëñ Cheikh Ka ñoom ñëpp sëñ Abdou Lahad Ndiaye sëñ Mbacke baabu sëñ Khadim daal kon yaakaar naa tey mbooloo woo soxna jaara woote na nga ñëw di màggal bis boobu mbooloo mi wuy si na su ko defee rek yan kàddu ngay yëkkati li nga xam ne moom moo di bis bi eh, alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala wa ashaabihi ajmain eh, maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam sant sëñ Touba sant soxna jaara mi nga xam ne mooy borom bis bi tey di sant ci jataay bi ngeen fi ñëw fekk si ñu fi eh, di ci am mbégte bu baax di nuyu Serigne Gora mi nga xam ni moo fi liggéey bi di ko siyaare bu baax barab bi ñu toog nag mooy barabu soxna jaara fii mooy Poroxaan di barab boo xam ni jëmm ji ñu fi fekk si euh, symbole la ci lislaam mhm. symbole la ci yoonu murit sëñ Touba mi nga xam ne amuñu kudul moom ci moom la jaare mhm. muy koo xam ni ñëpp ko amul njukkal ak cant moom soxna jaar waaye nag euh, mën mi dama cee raw li tax ma raw ci mooy waxoon naa ko ca jamono yële ci ginnaaw 97. bu siiw boobu ma fi jàngoon muy soxna jaaratullaahi sama liggéey bi gannaaw yàlla fu mu yegg loolu moo ko lancé loolu tax ñëpp di wax xaadim Gueye maam Jaara 98 ca déwén sa laa njëkk a sanc fii ak tey ji ñaar fukki at may màggal fii màggalal soxna jaar si Moustapha Bassirou radiyallahu anhu moo ma joxoon barab bi waxoon ne naa ko defar te toog fi liggéeyal fi maam jaar at mi fi njëkkee ñëw ñaari xar yiñ ñu rey añ nañ ci reer ci ndékki ci te teewul mu des ba tey jii ren jii rey nañ fi juróom-ñaari nag dépensé fi lu ëpp 6 millions te doyul mm. kon liggéey bi nangu na kon ñu ngi sant maam jaara di ñaan suñu borom dolli ko leer ñu ngi taasu ci barkeem léegi lim nañ fi lu mat ñetti téeméeri kaamil ak nangam yoo xam ne jàng nañ ko li mi xasida yi kenn mënu ko wàññi bañ xëyee ci suba ba tey jàngkat yaa ngi ñëw di jàng di dem ba sëñ Abdoul Ahad Diouf fi mujj léegi te léegi ci kanam lañuy ñuy tàmbaliwaat ba asamaan set kon ñu sant bu baax a baax tey gërëm di am cant ci ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog li wala nga di ko dégg ñi ngi lay sant bu baax a baax sant sëñ Touba nag ndax ku munta leble war a mën a fay bor te nun ku la tax a gën koo wërta woon a gën loo ko sante doyul waaw jëmm ji nag nga xam ne tey jii moom la fi ñëpp fekk si muy Cheikh Mouhamadul Muntaka na ko taalibe yëpp ñaanal sun borom yàggal ko fi te wéral ko te sàmm ko ndax bu njëkkaan ña fi jiitu daa nga moom Touba te doo Poroxaan tey jii nag Cheikh Muntaka moom moom Touba moom moom sëñ bi dañ daan wax ni daana wax ni poroxaan ji ku fi jàng boo ko fi fekkee mbaa mu fekk la fi tey jii nag da nga naan fi jàng fekk fi sëñ bi génn tàbbi ci kër gi fekkaat fi sëñ Touba kon yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ko wér ba lim yéene lëggeel sëñ Touba muy defee ko ni mu ko bëggee sant nañ ñëpp gërëm ñépp salaamaaleykum wa rahmatulah. taxawaayu Touba Argentine TV rek nan nga ko gisee ak looy ñuy gën a ñaax ci liggéey. waaw moom taxawaay bu am solo la xam nga sëñ Gora mi nga xam ni moom xam naa ko bu yàgg. Euh, bari nañ ay jataay ak i jaaruwaay yu baree bari ba bi moom mujjee Argentine am nañ fa ay jataay maam ci hôtel ba ak yooyu maa ngi naw liggéey bi bu baax di ko félicité itam bu baax a baax ndax euh, ak bëggam yàgg naa nekk ci lu mel nii yàlla dem ba jur nag ay rajo ak ay télévision yu yu am solo yu ràññeeku ci yoon wi barke Cheikhul Khadim maa ngi lay baax na yow di la di beral sa cantu bopp ndax euh, nit la nit nga koo xam ni ku la naw laa ci liggéey bi ngay def di la ñaanal yàlla itam bu baax